ko ci nit ku bax du jeex am na ñoo xamne sa yo yoo tàngalee seen xol rek ñi xass la am ñoo xamne ne bo len rek ñu jàllal bi ko manam euh, wa ay ya jëlon ci yonantu ba ñi wax la ko xam nga lolu alquran xam ko kon kenn du yonantu bi li ñu jël dañ ko wara tibbu ci mom kon lolu moy firem batin menn mi benen bi nak huwa marajal bahrayni ñaari géej dañ fay nekk ta jege moy bahrul uluhiyya ak bahrul khaliqati moy géej ak yalla gi ak fi ñaari géej la ñu jege jege bay bëgg a laalante. day xamel jege gi yàllaa ko wax ne. wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid man maa gën a jege doomu aadama bi buuma xolam ku la gën a jege sa buuma xol kay jege ngeen kon yàlla daf bëgg a wax ne géejam googu di géej ak uluhiya ak géej ak mbindeef yi jege nañ ba ñu jegee nag géej yàlla googu di géej ak uluhiya gi moo ëmb jëmmi yàlla ja ju tedd ju sell ja waaye tamit géej ak mbindeef yi amul lenn loo fiy gis lu dul dafa taxawee turu yàlla wala mu taxawee melow yàlla ñaari géej yi dañuy dem bay laalante yàlla jël sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam def ko ci diggante bi moom moom la wax ne maanaam wa jaala baynahuma barzaqan yonentu bi moo nekk ci diggante bi waaye bu yonentu bi nekkutoon ci diggante bi ñaari géej yi bu ñuy laalante rek géeju mbindeef fii dana mujj lapp ci géej ak yàlla gi dana mujj lakk waaye yonentu bi ne boo gisee mën nekk ci diggante bi di leen séparé dafa am ci ñaari melo yëpp melo doole yàlla la taxawee moo tax mu daan wax ni anna minallaahi wal muminuuna minni kon doole yàlla la taxawee waaye tamit melo doomu aadama la yore doomu aadama la aadamaa ko jur moo tax mu daan wax ne ana wal ana sayidu wala di aadama wala faqra loolu tax nag mën a nekk ci diggante bi di mën a séparer ñaar yi ba nga xam ne benn du mën a laal sa morom kenn du yonentu yàlla muhammad waaye bu taxutu moo tax mindeef yëpp ñu ngi dund ci roon des ak kiiraay ak sayduna muhammad bu ñëpp dund toon ci roon kiiraayam gi rek ñëpp lakk alko kon loolu la namm ci ñaari géej yi ci wax naa la ñetti firi yi kon ci ñaari géej yi moo tax mu ne wa huwa moom yàlla alladi mooy buur ba nga xam ne maraja jaxase na albahrayni ñaari géej yi haza géej gi asbun aji neex la furaatun aji dagg la mu mar ngir ak tat neexaay ga mi ngi bàyyi ko ci farata wa haza géej gi milxun aji xoromu la ujaajun aji xinj la wa jaala def na baynahuma seen diggante barsaxan digale wa hijiran ak kiiraay mahjuran ba de buñ teresee nag jaxasoo ñoom ñaar buñ jaxasoo àdduna bi tukki mën ta nekk bàyyi na loola nag ñu ngi doon wax ndox ci géej wax ndox ci taw léegi nag mi ngi wax ndox ndox ci ma mëniyu kenn du yàlla ndox mi ñu tuddee toqantal mëniyu mu ne man yàlla moom laa jël toggu ci ñaar ci laa toggu góor mu nekk boroom askan ci laa toggu jigéen ñi koy askanee ak goro maanaam euh, buñ ne goro rek la ci ëpp ma ngay dollu ci jigéen donte mën naa dellu ci góor waaye buñ ne askan rek mi ngi dellu ci baay ñaar buñ doon sëy rek jàppal ne askan wa ki ñu askane doom ji sant wa yëpp baay ja moo tax yàlla ne udduuhum li abaayihim jël leen doom yi ngeen askane leen seen baay yi mais bu leen leen askane seen yaay yi shaa'ir ba ne fa innama ummuhaatun dégg nga mu ne fa innama ummuhaatun naasi awiyatun mustawdiaatun walil abaayi abnaaw mu ne jigéen ñi dañoo nekk ndab yu ñuy denc dencukaay lañ frigidaire lañ waaye nag ki nga xam ne moom moom denc ba di ko fa denc bu mu paree la mu dencoon man koo askani ko kooka mooy bàyyi moom la yàlla ne waxuwa moom yàlla allazi mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na minal maayi ci ndox mu ñu tuddee toqantal ma niyu basaran mindeef ta doom aadama la ci namu fa jaalahoo def na mindeef mooma nasaban muy borom askan wa sihran muy borom ak goro wa neka nek na rabbuka borom sa qadiran di aji attan ci lepp leuf ki yalla rek moko man gis nga jital na nasabu ci si foko ko fekk goro nit ki day juddu bo juddu rek da ngay indi yàlla kare ba ci kanam nga tak soxna da nek jigen ñi takala goro su boba ñe nek sa ni goro motax ko jitu goro motax timit bumi ba muy andi donte lay waaw sax moom istiraak tegtale ci balaaxa mooy ñoom ñaar ñëpp am nañ wu ne bee jiitu bee njëkk waaye loolu la ci namu mu ne nag ba ma defee lii lépp ci ñeenti kaawtée ànd ak loolu lépp wa yaabuduuna ñoom ñi ngiy jaamu min dooni laay ku dul yàlla maa laa yan faxoon te leen ak jaamu ga wala yadduruhum du leen lor ñàkk a jaamu ga wa kaana alkaafiru xéeféer bi zahir aji not ala rabbihi dafa dafa dafa dem allié ak shaytan ñi bokk di sot yàlla ndax yàlla bu defé li lépp nga bayiko fi di jaamu xiram bayiko fi di jaamu